waaye la ba tey maa ngi ci kaw asamaan si tey fi laay defee émission waaw kenn mosul def nag ci kaw asamaan si émission euh, jëlal wan leen. Euh, deuxième asamaan yow sax yow yaay gën a xam man ñaata laa toll ci kaw asamaan si. mer baa ngi dee huit cent mètres d'altitude mer baa ngi dee <laughs> ay émission bi émission bi tey xam nga ci lu ñuy waxtaan. Hmm? ci wàllum asamaan. ndax it wax dëgg yàlla ku ñëw ba fii waroo waxtaan ci lenn lu dul asamaan. mais maa ngi am mbégte di kontaan. billaahi mosumaa gis lu mel nii. waaw sama nopp yi day dem ba sakk. sama loxo yi nii bu ma ko dugalul fii sedd bi ëpp na waaye mbégte la day fekk si fii nag sama sama sama. samay soxna sax laa wax waaw yu yu yu baax ñoom mhm. toppatoo ma ma visite dëkk bi di am mbégte defar nañ ko comme Dubaï mhm, tey ñi ngi Paris fii nga ne nu mu tuddati pour mi moom moom bala dama koy wax fii booy di ma TikTok euh, nañ ko tënk rek amul problème <laughs> léegi seet si naa leen am naa mbégte Euh, kontaan bu baax nag mm-hmm. yàlla xam na ko yàlla na yàlla def jàmm ci mm-hmm. réew mi yàlla sàmm mm-hmm. yàlla suturaal ñu del jël asamaan si yow tamit sama caméraman jëlal asamaan si waaw voilà nañ ko tënk rek amul problème <laughs> léegi seet si naa leen am naa mbégte euh, kontaan bu baax nag yàlla xam na ko yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla sàmm yàlla suturaal ñu del jël asamaan si yow tamit sama caméraman jëlal asamaan si waaw faut nga jël asamaan si ñu xam ne man maa ngi tiim gaa yi. Hmm? Eh, moo tax lépp looy ñaanal waay rek. Hmm. yàlla nañ ci jiitu. sama benn waay da koy wax muy jàmm. Hmm. waaw yàlla nañ yàlla nañ yàlla na am jàmm. di ñaanal yaay. waaw di ñaanal yaay ndey sax. mère Faly Mbaye yàlla na ko suñ borom xaare àjjana. ak mbooleem képp ni ko olof di waxee ko fa fekk ak ku fa fekk. waaw di ñaanal tamit euh, réew mi jàmm. Sénégal fii ne soxla na jàmm. fi mu ne nag ñu ngi xaw a yëngatu mel ni luy daanu xaw a jàppatu waaw waaw maa ngi ci doo bi kon am nañ dëkk ñu ngi yéegaat nii caméraman bi dafa caméraman bii de moo ëpp solo ñëpp attention maa ngi ci kaw waaw waaye leen ma fi na nag dam leen damay def émission mais mënuma xool ci suuf comprendre leen lay <laughs> gaa yaa ngi xaw ma bato lañ ne xaw ma jëlal kii wala kii. maa ngi rek. comme nii la demee daal. Mhm. nii la mën a ba ci kanam. xool ma fii waaw madame fii neexee moom nag ak bëgg Paris ah chaque jour mën a ko ñibbisil Sénégal mu naan ma ñëwuma naan ma fa dëkk neexee mais sañse nga madame Niass lay doon oh borom Paris ñëw naa ma ñibbi wala ma toog. xam nga ni ñuy maltraité nit de yow loolu rek nga jàng ci réew mi nag sama mbagg yi amul fa. non. la ilaha illallah. lamba lamba lamba fii fii fii. ñaar ñii nag lu ma dal ñoo ma ko yóbbu lii ma indi fii man xaw ma ci asamaan si laa nekk man xaw ma laa nekk mais sama nopp yi sax déggatul xoolal lakkal bi Pablo macha allah yee tey moom sama xol sedd na non de fii waxuma la ñaan mais fii ku aajoom nër faju doo fi ñëw waaw fii sa aajo day faju ba pare nga ñëw dëgg làmba mi ngi na dëgg la mi ngi nii macha allah kontaan naa trop def naa visite ba pare kontaan naa hmm? Sénégal nag léegi ma ñëw nag dugg si ci yoon mu hmm? ñu tàmbaliwaat affaire yi noonu la waaw adduna moom ku yokkul rek da wàññi sama xol sedd na nag bég naa ba waxaatal fi ma nekk nga ne trois <laughs> maanaam. entre suuf ak kaw asamaan bi. waaw yaa ngi à trois mille huit cent mètres euh, fii gisoo fi picc yow. non fii maanaam. doo ko fi gis waaw picc duñ fi yéeg parce que amuñu kii ndeke gars yi ñëwuñu woon France. waaw dafa dem Paris rek de a rey Tour Eiffel. ah man ne foofu France ndeke man. non fii mënul am picc. foofu dem. fii moom dañ may xel koom rek lañ may delloo xel koom ca ngóob ma. waaw lu waay jëful doo ko doo ko. <laughs> fii daal ñàkk jariñu la. yàlla nag. ay amul Rasoul. amul sëñ Fallou amul Fall amul Moustapha amul Modou. amul Fall beneen Fall bopp. fii wax dëgg yàlla xel koom rek la may fàttali lu waaye jëful doo ko fi jële mais boo jëndul loo gàdduwul du. <laughs> doo du dem <laughs> da fay ci zéro. <laughs> da ngay fay dañoo madam na ma lii jël. fekk lim doon bëgg ma ñëw yëpp daf maa bëggoon a

Aww. Deux Alpes. ñëw nag visite. yaa. laal say laal say. attends attends attends. fii la fii daal kenn du ko lancé. lancé bi daf lay déggal da ngay ñëw rek. fekk mu dem. jërul lancé. mais nag li may yëg ci sama yaram bi. du seet kon du invité fii Rasoul. Rasoul man. men maa bañ ñu gaañu de daw. warul xam ah. xam. <laughs> rasul. ay Paris. waaw ay fii du fi xam fii da koy nëbb ah. non fii moom. c'est moi c'est toi. pour pour toi. non c'est moi. Allez viens mon cœur. Pablo viens. Voilà, l'intime de Québec. Maman euh, Je suis à euh, Jean de... Janvier. Roger D'accord. Roger dans ma place Maman Est-ce que là on va faire du ski là Le Kobarini Hein Oui, ma vie. Avec Chiara Oui Et toi aussi tu vas faire du ski Dañ leen a tiim nii. Ci mhm. yàlla. Yàlla bind na nu ne. nekkee. ñoo na ko gisandoo gars yi sëñ Mara la aux deux Alpes def petite visite xoolu mbokk yi la famille et tout fii la nuyu chambre bi ñaata la. <laughs> un million lii la yàlla dogal dëgg lu neex. waaw kay. affaire kese. ci dëkk bi rek di visite. billaay wallaay taalaay tey moom maa ñëw uniquement pour visite. nuyu naa leen nag. baa fay ngeen ma. yaa ngeen jëf.